gis ngeen Bougane mu ngi def conférence de presse. Naby Vision. du ñàkk fulla moo tax ñu koy déglu il faut ñu déglu ko xam lan lañ koy tontu. mais Waly Diouf Bodiang ñu ngi lay ñaan bul mos a tontu Bougane parce que du sa nawle nit booy tontu nit da ngay tontu ak sa nawle Bougane yow bàyyi di créer di incarner pour di sonko sonkolu looloo la metti dégg nañ na nga ne kiñ dégg poor wax ci lu la neex amul problème. yow ba ñu génnee parrainage si nga war a sant yàlla mais askanu Sénégal cuune gu ñu cuune bu dee ne dañoo nar a cuune mooy yow ñu dugal la biir assemblée te ba bufta bi wal bugaan man sama video bi bu la neexee nga téye vidéo bi ba élection yi passé bugaan ba buftu bi wal doo dugg biir assemblée loolu man man maa ko wax man ba buftu bi wal doo dugg biir assemblée yow Sonko bu cuunee bu cuunee non yow kenn amul ñaanul yàlla am doom bu cuune ni yow Bougane cuune nga ñàkk nga xam-xam matadi nga réew nga arrogant nga xamoo tous say wax amul argument. salaamaaleykum waa ma ne kii du sama waa ji Bougane Bougane maa ngi la dégg nag yaa ngay aaru rek ndeysaan di saaga Ousmane Sonko di xas jomaa ak yooyu maa ngi lay dégg sa sa biir wax nga ne sa doom bu góor bi dina la papa. tu as mis le sac là, où tu vas nga ne ko non bientôt je vais aller en prison prison noo doo dem demoo de kenn du la tëj bugaan bugaan li nga yore ci bor dafa bari bugaan waa jooni jooni fayagu leen te mënagoo dem prison bugaan da ngaa amee impôt boo war a fay fayagoo ko mënagoo dem prison bugaan sa télé ba am na ñoo fa war a fay fayoo leen bugaan xale yi nga ëmbal ñoom ñëpp nga war leen a dundal ñoom ñëpp boo demee prison dañuy nekk ci jafe-jafe. bugan defo sax lu tax ngay dem prison bugan ne ko maire ne ko député ne ko dara nguur gi amo ci dara yow say client yep nak wax deug yalla askan wi ngay triant nak du du defendi fen di day di dajale Bougane ñi la jotoon a bëgg yëpp bàyyi nañ la prison do fa dem de nang leen wax nak yeen wa Pastef bis bo leen teje bugan de dina genn manifesté wu tak sama bande rouge na libéré bugan bayyi leen ko dafa wara dem élection dafa wara campagne dafa wara a ci député yi prénance amul bugan do dem prison de bu dee moo tax ngay génn di xas waa Pastef di leen saaga ak yow mm, baax na ñun fi mu nekk xale yi da maa leen romb koo romb la focus xale yi dañu ngay focus sa le 17 Bougane dañ zappe nañ la de zappe la man nag maa sax génn nii di wax mii rek parce que xam nga ne man sama xarit nga dama laa bugga moo tax may génn di wax demoo prison da ngay toog dañuy jàkkaarloog yow. salaam patriote yi maa leen nuyuwaat yéen ziar bu wér xanaa ci ku tekkiwu ki rek Bougane Bougane soxor nga bon nga iñaan nga. Naby Vision bugaan may ñu bugaan niw may ñu sax xasawaay réew mi doo fi tekki dara xam looy jiite sa seen TV boobu kese ngay jiite doo fi jiite leneen bugaan may ñu jàmm Sonko du sa moroom sax wax la ko gëmal yàlla doo fi jiite dara da sonal sa bopp rek la la li nga mayoon Macky Sall ñun patriote yi duñ la ko may gëmal yàlla dégg nga Macky Sall du Sonko Sonko du Macky Sall est-ce que ma la gëmal yàlla ñun topp ñu la kaso bi ngay wax nak kenn lu ko tëj dañ lay baye nga dem ci election yi doo am ben député ba nga xamni nit ñi ñu la ba nga xamni fi fii fi dara may ñu jam ak sa way ge ma ngi deg leg mu nan sama sak, sama dom daf ma fekk neeg bi saak bi li petit patata waxe picc gis nga mbugal bu fekkente da nga def lo xamantene da nga waru teud kasso da ngay teud kasso de bass soxlawul ngay jéem a jaay affaire de petit malin mel ni si ni sénégalais yooyu dof la noonu gis nga Ousmane Sonko bu leen jéem a joué zo yooyu ak Cheikh Yérim Seck maa ngi dégg Cheikh Yérim Seck naan man ci moket laay fanaan affaire mel na ñuy préparé prison di woon sénégalais ne yéen ñi sénégalais yi yéen ñi ma waroon prison ma bëgg leen a xamal benn affaire amul benn sénégalais muy autorité bi. muy président mais Macky Sall moo gën a ragal kaso amul benn sénégalais bu ñemee kaso amul sénégalais bu ñemee prison amul yéen yooyu di jéem a jaay ni ñu ngi leen kaso waxoo leen dëgg. ah Bougane Gueye Dany nga euh, mu sell mi daf ñuy fay ñu di ko waxal baax na comme xamoo yëgoo tinoo comprendre bu la neexee nga wax ko waaye Seydina Ousmane Sonko mu sell mi dafa am Khadija bu Sonko. am Zeynabu Sonko am Ibou bu Sonko maanaam ñun ay yu Sonko lañ tubaarikàlla loolu la yàlla dogal euh, Aïssatou Diop Fall. Naby Vision. nga ne xar yi Ousmane Sonko créé ñu nekk ci internet bi di ko waxal dama lay laaj ñaari baat yu bëriwul ndax mës ngaa dégg ci mim réew benn politicien boo xam ne nit ki day taxaw comme par exemple maanaam nga ne Khadija bu Bougane. ay ree sama ma japp mais xawal loolu kenn mosu ko dégg te ki histoire politique kenn duko ko dégg benn la fi te du ñaar koku dafa am ngor bëgg réewam nek patriote pire kaddu la yalla moo ñu ko jox Seydina Ousmane Sonko mu sell motax ñu bëgg ko ba wuñ ko xolal ñun patriote yëpp ay Sonko la ñu tubaarikàlla liir naa ci Facebook bi benn way ne ma yow sa baay bi mu lay tudd tuddeewul la Khady Jaabu Sonko man sama baay mi ma tuddee Khady joxaane jigéenam bu mu bokkal benn baay noonu la ma samay papa tuddee mais man maa def sama bopp Khady Jaabu Sonko. salaam salaam ziar naa leen mbaa lépp jàmm Bougane Gueye Dany damaa defoon ci yow vidéo ma ne bu la kenn tontu waaye ba tey rek bu la kenn tontu yow daal Bougane bu la kenn tontu bu la kenn jàpp nañ la fi bàyyi ba ñu dem ak yow élection yar sa coalition. Bougane kan. di nga xam ne lépp dëgg la Bougane da ngaa toog sa plateau sa conférence de presse nga saaga suñu président Bassirou Diomaye Faye kenn du la saaga kenn du la jàpp dama koy ñaan rek bu ko kenn saaga bu ko kenn jàpp Bougane nañu dem élection bu ñu demee élection Bougane di nga xam ne lépp la yow Bougane tuuti kii yow Bougane yow yaay kan ba ngay toog di saagaate yéen nag kenn mënu mucc ci yéen ah dama ne woon du la tontu mais dama doon nalaw sa tuddoon na sax dina la way ak dañ mayé bu bugaan kenn du la da nga bëgg ñu jappal kenn du la dañuy dem ak yow élection bugaan nga xam do tous dëkk bi do dara ci dëkk bi Cheikh Yérim Seck aussi dégg nañ la nga bëgg kula japp way yow tamit kenn du la ma Madiambal Diagne dégg nañ la yow aussi ngay def diffamation way kenn du la nanu dem rek gis nga dëkk bi ñun ñokoy gouverner. Naby Vision mu neex leen mu nakari len tay damay taxaw jàkkaarloo ak yeen di wax ak yéen ndax dañ leen a yabaate yabaate ngeen toroban dëkk bii Pastef ñoo koy gouverner ta 50 ans lañu jëm ak yeen gis nga élection législative yi inshallah rabbi 140 députés ou 150 yéen ngeen xamné lepp deug la yabaate ngeen torop dam len ngeen tok te ngeen nan glace deuk bi ñun ñoo aye da ko aye war sa moom yenn yéen luy seen problème yéen may nañ nit ñi jàmm tey moom damay jàkkaarloo yéen taxaw defanteeg yéen ba bu saf jabaate ngeen torop ah kañ bu nekk génn di wax luy seen problème ñun jigéen ñi Pastef ñooy génn defanteeg yéen Bassirou Diomaye Faye du defanteeg yéen Ousmane Sonko du defanteeg yéen ñun jigéen ñi pa jigéen ñi Pastef les yu jigéen ñi ñooy defante ak yéen yéen góor yi damaa bëgg ngeen génn ci te bàyyi ñu jàkkaarloo ak ñi ngeen mel ni ay kaña nii. di bëgg di leen siyaare di leen ñaanal <laughs> ah! waaw waa ji waa ji nga xam ne xam nga day xeesal xaw lu muy def nii sam waa ji Modou Gueye da ngaa wax ak sa doomu baay ji. <laughs> mu duggee wax la sa doomu baay ji waa sa doomu baay ji lu ko dal ah sa doomu baay man day joxal na ma man bugaan bëggal réew mi te dund patriotisme xaw ma da ngay xeesal xaw ma góor yow jigéen nga waroon a doon parce que xaste rek yow daal say wax yépp xaste la billaay walaay talaay président bi moo la ëpp maanaam lépp looy xool ci góor président bi moo la ko pale barki yonent yàlla Muhammad sa saaga yi nag da ngaa bëgg ku la ci kaso bi nga ne dañ maa tëj participer ma ci élection bu ko kenn jàpp dafa mën a fen dong ci ay caaxaan ci la tënku barke alxuraan waaye lii dalay gën a yàqal lii moom dalay yàqal mais xaaju la bay parce que doo génn génn bu baax bugaan doo wax loo xam doo def loo xam bari nga wax soof nga ñàkk nga xorom ñàkk nga fayda di lambar lambar yi loolu dong ngay def ci dëkk bi président de la République boo demee ba koy saaga nag mais ñoom duñ say nab gars yi bu leen ko jàpp de duñ say nawle duñ say nawle bokk barki alxuraanu karim nawloo ñu la ci dara lépp ñoo la koppale yow président Bassirou bo taxé mom do doo feñ jantal men jàpp. Vision. yow ki dafa dof ki mom dafa dof Modou gey waxal ak sa doomu baay bi barki wala bok mbok wali sek japp len sen mbok mi ki day day kii la moo en fait man bari na wax sof na te du wax lum xam sénégalais nak yeen ñi nga xam ne yéen bëgg réew mi bayi len sen xel ne barki alcorane karim ki ap pot sax bu ngeen ko ko denké mu taal réew mi parce que Bougane dafa xamadi mak mu réew la. dafa réew a réew a réew a réew a réew ba dof te du wax xam-xam dul wax lum xam te billaahi du def lum xam li moo li ban genre la quoi li ban genre politique la moo fet ka moo nekk sa ginnaaw man nag maa ngi doog a xam ne danga doon liggéey ak Macky Sall parce que Macky Sall mosoo ko woon ñeme saaga Macky Sall li muy bon bon soo ko woon ñeme saaga ah Macky Sall daa dem daal di la xaw ma ngay saaga ñii bu ko kenn jàpp bàyyi leen ko mu participer ci élection yi ci ay caaxaar doo mu ci la tënku nag say mbokk nag buñ la seetaanee ba nga wax ba gaañu wala nga dee seen problème la waaye barke alxuraanu karim ñi duñ say nawle sidna Ousmane Sonko du sa nawle aw dàllam dong fu jaar doo fa jaar li lay merloo nag xam nañ ko ñun ñi nga xam ne dañoo yor suñu liggéey ñu benn tiktokeur bu ñuy fay ngay lambar lambari heure bu ngeen defee vidéo wala ngeen génn ci télé ñu attaqué leen wax leen lu ñu saf comme da ngeen a réew sidna Ousmane Sonko doxalal tëddal xolal yéen na leen réew mi ñor rek nekk leen ci réew mi rek woy wu fi génn di wax incha allah rabi ngeen bàyyi koog ñun ñu jëflante koog moom ba mu saf incha allah rabi ci ay caaxaan dong ci la tënku mbokki Bougane Gueye Dany jàpp leen seen waa ji ci dafa réew réew la def nag nekk di sànq président bi dafa réew de <laughs> ah baax na. waaw Bougane Gueye Dany nee na moom pare na pour dem ci kaso bi nee na it Ousmane Sonko dana ko rey wala mu rey ko mais Bougane li ma la wax rek wax xale rek ngay wax man damaa jàpp ne yow ñi gën a bëgg président Ousmane Sonko ci réew mi ci nga bokk man loolu laa da nga koo fan man xam naa ne danga koo fan li ngay wax nii waxi da waxi ko fan ni dong la da koo bàyyi xel mais na nga xam ne da ngay sonal sa bopp comme ni ma la ko waxee rek bugaan bu fekkoon ne micro wala tourné jënd oto yi rafet war réew mi ah mooy tax nga am dara ci réew mi yow waxatuñu kon tey fii mu toog tey yaa fi toog jënd nga oto yi rafet war réew mi fu ne nga dugg fa loo xam wax nga ko te fini ne mënoo muno dara mënoo nek dara yow mosoo am parrainage. nabi Vision. yow nga ne ci réew mi mosoo am parrainage mënoo am parrainage bu dajé ciow nga ba son usman ñoo ray ak Ousmane Sonko Ousmane Sonko dimbali ñu demal demal bayyi wala nga sét no def demal nga bayyi wala nga sét no def président Ousmane Sonko mënoo ci mom dara mënoo tax sénégalais yi bàyyi ko ngay xamné sénégalais yi gën tay lañ ko bëgg tay yow dang koy yokkal ay ay victoire élection législative yi lañ lay xaar ba mu agsi nga xam ne président Ousmane Sonko tête de liste tey lañ ko gën a bëgg tey lañ ko wala gën a wóolu tey lañ ko gën a fonk tey lañ ko gën a gëm kon sa conférence de presse yeeg sa wër ribeeg sa wax ji yépp amul njëriñ mënu gañe dara da ngay dem nga jéem a uti parrainage ba matal ko yow tante nga parrainage ñaata fois mënoo am benn parrainage sa yoo demee ñu rejeté la wax deug yalla do taxaw do taxaw ci lolou seddu sa bop xol lan mo lako xagn xana xanaa sénégalais yi ngay wax bu fekkone ne gëm nañ ko wala ñu top la wala ñu diglu la wax deug yalla da nga matal parrainage te mëno matal parrainage gouvernement bi tok nak mënu ñom dara du gouvernement bu ñu xoxotal du gouvernement bu ñu tiital <laughs> bugaan <laughs> di nga def élection de lu leer la la wax ñun wax sonu lu wax mala boy patriote yi ni wax sonu leen sax parce ñom ma ay kubéeri cadre ay kubéeri ci lan nan yo di do rang rang rang ñooñu booy wax seen nopp nii day mel ne waxu day mel ne waxoo dara élection ngay bañ moom kii kii dinañ ko xam <laughs> le set novembre bu gaa di nga xam tuuti kii si nga koy xam xam na la baax li ngay wax ni kenn du la si tëj kaso wax ka fii ba suba kenn du la yóbbu jàll parce que waxu dof ngay wax yow waxu dof rek ngay wax da ngay yow suba di wax ay waxu dof <laughs> nga ni ñaata nga ni ñaata maçon ñoo nekk en chômage. Euh, trente mille ah trente mille maçon ñoo nekk ay chômage bi ñu arrêté chantier gi léegi Bougane tamit chantier yi xam alal réew mi la ñu war ko delloo <laughs> kon trente mille maçon ñoo doon dundee alal réew mi mën nga leen ko yow du vieté chiffre foo jëlee ay chiffre barki alxuraanu karim billaahi wallaahi taalaahi da ngay dem élection yow ti seras tué kii ki et kii la 17 novembre lañ koy xam yow métti woo sax waxu dof yow Bougane waxu dof rek ngay na la de coureur barke alxuraanu kërim sa soxna yàlla moo ko jël de ndogal yàlla la gëm nañ ko mais nag sa soxna yow maanaam li li li nga feebaroon stress boobu nag yàq teg yow bugaan foo dem bàyyi fa sa caleçon ngay taxaw fii di mooy wër ndar ndakaaru ndakaaru sa caleçon say caleçon say dem bàyyi fa caleçon <laughs> <laughs> <laughs> Eh, politicien carson ak eh, politicien waxu dox politicien sac à main politicien waxu force ngay dem day élection yo lan day tuyee kii yo yambar nga <laughs> politicien sac à say calçon yi forox ya rey sa soxna stress bu ko bu bu bu bu ko yokkoon feebar yow la ya ko teg coureur de zippo nga xam na la baax mbugaan nga ne président Diomaye ngay xas dama tombeeg sa benn vidéo sànq ci tiktok bi benn waa ju nekk extérieur di ko seetaan di jooy sama xol bi métti nga ne président Diomaye ngay xas président Diomaye sénégalais yee ko choisiral seen bopp fal ko 54 pour cent mu nekk président génne 10 jours la campagne gagné élection yi au premier tour lu Senghor amul Abdou Diouf amu ko Abdoulaye Wade amu ko Macky Sall amu ko xale bu ndaw bii ngay naan kenn xamul lu muy nduroo président Ousmane ñàpp la ñu am yaa ko wax ci sa gémmiñ xale bu ndaw boobu la sénégalais yi yëpp 18 millions de sénégalais jógandoo ñëpp xëy fajar teel dugg ci bureau de vote nekk yow la ñuy fal mbugaan yaa bon yaa yées yaa nàmp ci mbaam yaa juddoo ci mbaam nàmp ci xaj ndax yow xaj nga doo nit yow dangaa bon de barki sëriñ Babacar si dangaa bon gis nga man TikTok bii mosuma cee def vidéo président Ousmane Sonko rek lay publier parce que man moom rek lay topp lépp man ci ay kiyam rek lay topp waaye yow nga ne nga jóg nga ne. Naby Vision président Diomaye ngay xas boo déggee du ma wax rek daa fekk laa luñ sa mbokk. waaye waatal naa la ko barke Serigne Babacar si gis nga joomaay mii ngay xas moo gën sa ndey gën sa bay gën say maamaati maam te waat naa ko ci Serigne Babacar si man ngaa xas président Ousmane Sonko mu jigle de waaye gis nga ñun séeréer sii boo juumee ba dugg ci ñun di nga rëccu doo doon juddoo ci àddina te lii maa la ko wax. boo juumee rek ba ne dangaa dugg ci joomaay rek ba am ci yenn yoo ciy wax rek di nga rëccu loo doon juddoo juddoo ci àddina te lii maa la ko wax. dangaa bon dangaa yées lu doy ni président de la république sénégalais yi fal ko à cinquante quatre pour cent amoo lenn looy def bon yées xol bu ñu rek la jàpp ak say tànk yu x amoon lenn looy def lu dul jël gor set bi organiser takkusaan woo say taa ngéwél ak say tànni berkat ñi day tëggal di la taaxuraan nga toog di xas ay gor yu set wicc Ousmane sunk du toog jamais ba wax ci yow Diomaye mosuma dégg sax muy wax bay juum bay nan buggan nii wala na Ousmane Sonko moom da dul juum bay wax ci yow ndax ñëpp xam nañ ne dof nga daara nekkul ci sa bopp bi nga toog jël góor yu set wicc wi du ma gën a métti mooy góor yu set wicc wicc wicc wicc xale bii nga xam ne dafa yaroo yaroo yaroo yaru ba nit mën la ko wax nga jël góor yu set wicc di leen di saag gont di leen di saaga di leen di tuumal yoo xamante ne nii non doo comprendre waaye yow nañ dem ren ba déwén nañ dem ren ba déwén ba nga xool ku la gisul di la sarax wala di la yërëm naan la lalu hôpital la mbugaan nekk mbugaan ngi nekk en coma wala mbugaan ngi a mënul dox dafa paralysé barki Serigne Babacar si ma xam ne ñu nekkatuñu séeréer te lii maa la ko wax nañ dox ren ba déwén nga xool. <laughs> anan. waaw Bougane laa gis tey muy xatraay waat ma ne ko lii mbaa jàmm la. loolu yéen da ngeen yëgul information bi ma yëg. Ah. Bougane dégg naa mu ngi jéem a négocier waa pavillon spécial. waaw réanimation la def ba élection yi passé. yàlla loolu kenn du ko fi nangu. day dem de réanimation doo fa dem de. boo saagaa kenn du la tëj. nga jéem a yàq der kenn du la tëj. nabi instant bi nag amatoo pexe nga ne réanimation nga jëm. doo dem réanimation di nga def élection force ñu xam yow looy posé. article quatre-vingt dañ la koy dencal. article quatre-vingt dañ ko denc nañ ko yow suspendre nañ ko ba après élection mukk moom kay bu soobee yàlla du génn yàlla ba doon taagal da ngay dem dañ koo rënk barke alxuraan maam mi ngi mel ni maanaam nga ne da ngay solom bu rënk rek bëgg dem dem waaye bu aan da ngay toog nga mu xaar dem bëgg dem fu ñu jëm élection la 17 novembre <laughs> oui ma dem soobee yàlla gars yi dinañ ko tisi position bi da nga dugg ci biir barrière bi da nga ci dugg dem <laughs> salaamaaleykum Bougane Gueye Dany yow la ñuy waxal yow le niveau est très bas quoi dañu mel ne tey ngay wax di ndellu di wax lu nekk si Ousmane Sonko Ousmane Sonko nag mooy li Alboury daan wax rek naa da daan wax naan sama maam bu ñu ko daan tooñ day bàyyi ba mu mag ñeent fukk mu boole leen ñoom ñëpp du ma dóor Ousmane Sonko noonu la dëkkee ak yéen yaa ngi wax nag di wax lu la neex dégg naan la ngay wax naan sa doom nee na la papa bi nga teg ni pour la la nga ne ko damay waajal dem prison pour bis bi ma yóbboo bis ñu ma yóbboo prison ku deful dara nu muy muy nu muy muy sóoraalee dem ak dem ak prison te Ousmane Sonko amu ya, sa jot ñun amu ñu sa jot parce que yow mato kilifa parce que yow sa nga fi publiquement té né nga da nga bëgg jité réew mi té yow lañuy dégg ci ñuy wax na yow da nga biir sa sa ben employé tak di wax ay ba ben ba ñaar ñata yoo biiral kon yow mato mato mato kilifa mato won njiit Ousmane Sonko di def nak Ahmed Diomaye def yow lo sa yow nekk ci te amana tay kaddu yi nga génne yëpp wax ko si président Diomaye ak Sonko buñ toogee 5 jours yow kenn jël sew la kon xam nga ne rupture bi ñu woote moo tax parce que da nga def offense ci chef de l'état da ngaa wax wax yoo xamante ne ay wax yu jékki dayoo yoo xamante ne nit waru ko mën a yëkk di ko teg si njiitum réew buggaan na yow li ñu lay wax ba di la ko wax mooy que ne yow motoo kilifa leer laa la wax motoo kilifa nee nga Ousmane Sonko dina la rey wala wala yow nga rey ka yow bu doon bu fekkoon rey Ousmane Sonko kese la yow doo àgg si Ousmane Sonko te parce que balaa ngay àgg si Ousmane Sonko ñun a ñu nag ñu ngi nii taxaw dawuñu waaw ba mu méttee dawuñu comme tey bu ñu ñëwee ba yor nguur gi gisuñu dara lu ñuy teree daw te li ma lay wax nii la di seet nga kay comprendre élection yi bis bu ñëwee nga koy comprendre campagne bis bu ñëwee nga koy comprendre ngay xamante ne li fi nekkoon mu fi ba léegi yow wax say moroomi moroomi moroom mooman booy ñëwaatee ñu dëbbal leen mooy loolu yaa am gën a xam xam nga Bougane maa ngi ko dégg mu def conférence de presse naan sama doom bi dafa fekk sama sac bu noir bi ma tek ko mun ma papa sac bi pour lan la mané ko man damay waygal dem kaso amin ya rabbi yalla sa gibin am barke gan yalla nga dem kaso ndax amoo teewloo rew mi dar du dul amel ñu impôt tax nangu woo ñu koo fay da ngay delo am ginnaw bu gan fayal impu yi nga yoré ta nga gan juni juni wa do fay Sénégal yi seen ci walum juni juni bi wala da nga fàtte Juni, juni wala nga xañoon Juni Juni dañ koo fàtte demal nga liggéenti problème juni juni bi gan nga fay ko ta xamni lolu mo gëna nek priorité rajo yek télé yi nga top di wax bugaan demal nga fay ñi nga amel ci jooni jooni bi loolu la gars yi demandé bi te bàyyi sa wax ju bëri ji nga nekkee may wax ngay wut ku la dimbali ci wax ji ndax da ngay kenn du nga woowee Assane Diouf yow fi nga dal moo baaxul Assane Diouf mi nga woo pour mu jàppale la ci ay wax Assane gars yi dégloo tuñ parce que assan nee naa la bu doon la sàlli na bu yàgg Assane Diouf safatul dara instant bi kuy suivre Assane Diouf Assane Diouf bu defee vidéo deuxième du ko am ay 1 am da xamna ni jabaram lay doon koy vidéo kuy aimé vidéo Assane Diouf kan vous koy aimé kan moy aimé vidéo Assane Diouf gan mi élection bu suba seen kër Vous ben carte fa ay TV gi ngay gis Vous journaliste yi yi jomay lañ ay dof lan mom mais gan dama nga xam affaire gis nit da ngay opposé wu amoo argument taxawoo ci dara lu yow kenn xamul yow bugan wax deug yalla da nga wax wax ba ñun sey wax duñ fa lañ ko mëna canaliser tek ko fa. dal lay jappé ku nekk dans le vent nii rek comme ci da ngay mar ay wax di wax yow wax nu ko jappé yow bala nga am lu la neex rek ah. nga di njëkkante wa di jëkënte di ubbi sa gémmiñ di wax di def ay mbour ak fu ne nga dem fa wax nga wax wax wax di wax. Ah, di wax ay inondation di fen yow askan bi kenn bayyi wu la xel. loolu gën a métti si àdduna di waxte la ngay wax kenn bàyyiwu ko xel Bougane Gueye amal jom nga am ngor ngir di naa Mohamed nga noppal sa bopp te xam ne yow waañ sax mënoo koo jiite waañ waañ doo ko jiite ci réew mi bay jiite ab kër bay jiite am réew. bii Vision. xolub kiñaan day sonal doomu aadama xolub kiñaan day sonal doomu aadama Bougane Gueye Dany. nga booy xool ragal dëgg ci Sénégal le premier ragal du Sénégal tey Ousmane Sonko bu Sénégal takkoon fekk ko bitim réew day dagat bi delu kon nañu wut ay nit ñu gëm Sénégal kon and leen nak Pastef te gëm sen bop gëm sa bop Pastef gëm sa bop jërë ngeen jëf. Modou bay man do am gatte Modou bay man do am gatte wuy Ousmane Sonko yalla da koo teral Bougane Gueye uh-huh. Bougane. Ousmane Sonko yàlla da koo teral macha allah te yàlla na yokk Ousmane Sonko moo nekk ki nga xamante ne mag ñi bëgg nañ ko ndaw ñi bëgg nañ ko yow nag kan moo la bëgg kan mooy jooy ngir yow kan mooy mer ngir yow kan mooy toog naan namm naa ko gisuma ko yow amoo fuñ la woyalee de yow kenn woyu la kenn woyu la ci ah Bouga namm naa la déedéet doo ko dégg de Ousmane Sonko namm naa la rek kay dégg aaye yawo Ousmane namm naa la yow doo ko dégg donc Bougane yow fi nga waroon a gën a amee doole xam nga fan lawoon woon bu nguur bi nekkee ba am ñaari at wala ñetti at foofu nga doon amee doole mais nii nii nii attaques yi ndaw yi dangaa bëgg rek Ousmane Sonko laal la wala Bassirou Diomaye Faye laal la tëj la ci kaso bi nga andi fi détail mais duñ la ko may waxal lu la saf defal lu la saf raw nañ la. Naby Vision. Mhm. ñun dañ laa raw duñ sa morom damal nelaw bugaan yow ndaama nga te soxlootuñu ndaama suñu dëkk bi <laughs> soxlootuñu ndaama de.